village euh, bu Talaatay Ndeer at mu jot ñuy fàttaliku xew-xew boobu di ci def yu am solo Ousmane ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci dem ak Tay. waaw asalaamaaleykum euh, Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs u Rewmi FM. Euh, di nuyu particulièrement waa Sénégal waa Waalo et waa Ndeer bi ñaan yàlla waxtaan bi ñu commencé ko bisimilah rahmaani rahim mu ci alhamdulilah rabil alamin mu nekk njëriñu Sénégal di jëriñu Waalo. Mm-hmm. jërëjëf Ousmane euh, yow ni ma ko waxee yaay secrétaire général commité de pilotage Talatay Nder déjà commité de pilotage bi kañ ngeen ko taxawal ak lu tax ngeen euh, yëg ni da ngeen ko war a samp. waaw merci beaucoup Fatou euh, xam nga Nder euh, daf daan euh, di def commémoration Talatay Nder chaque 7 mars. Mm. alors depuis je peux dire notre enfance dañ ko daan def mm. village bi rek moo ko daawoon def. Mm. mais par la suite bi ñu demee ba deux mille <coughs> deux mille dix neuf deux mille vingt nous avons jugé nécessaire que war nañu yaatal affaire bi. parce que Nder dafa nekk ci commune de Gnitch. alors donc lu laal Nder day laal commune bi. donc euh, ci la ñu ubbi mbir bi euh, yaatal ko donc euh, bi ñu waxtaanee plusieurs réunions ici à Dakar e à Ander ñu def benn comité de pilotage nga xamante ni un une coordonnatrice am secrétaire général comme man mii après am yeneen yi ci bokk ay commission yi ci bokk mm. alors loolu moo tax si la ñu profité ci année boobu noonu 2020 bi def bicentenaire u Talatay bi mu nekk euh, lu réussir mu nekk loo xam ni vraiment lu rëy la euh, comité bi nag du rek pour euh, fête set mars bu jotee ñu feete ko mais dañoo gis ni comité bi defor war participer ci développement Nder dafa war a participer ci ci changement Nder donc ñoom am jéego yoo xamante ni bi ñu paree ci bicentenaire bi sax déjà direction du patrimoine bâti jot na def ay affaire foofu donc comité bi loolu moo gën a tax mu taxaw pour taxawal Nder pour défendre Nder pour waalo waalo yi mën a sentir seen bopp ci 7 mars bi. yemu leen ci fête 7 mars am na yeneen jéego yu ngeen nar a def est-ce que mun nga ñëw ci seen mission comité bi. waaw suñu mission yi on avait des TDR yoo xamante ni euh, ciblé woon nañu euh, lépp loo xam ni dafa laal développement Nder et environnant ñu taxaw ci. déjà amoon nañu yéene ak taxawaay boo xam ni euh, nee nañu comité bi bëgg na ci participer muy defar musée Euh, nit yi dinañu mën ñëw euh, di visiter Ndeer amoon nañu yéene itam ak taxawaay par rapport ak suñu TDR yi ni euh, bëgg nañu participer ci Ndeer lépp lu fay dem muy ci affaire éducation ci affaire santé ci affaire culture de manière générale taxaw ci taxawaay boo xam ni daanaka at bu jot bu ñuy célébrer commémorer bis bi dinañu mën a gis ni kat suñu résultat yi comité bi moom moo fi samp lii comité bi moo fi def lii mais malheureusement comité bi benn at la daw Covid 19 bi dugg. Hmm. donc nous n' avons pas pu commémorer hmm. euh, deux mille vingt et donc ren ji itam bon. daanaka xaw nañu yéex a jóg tuuti pour hmm. wax ci mbir mi mais n'empêche comité bi taxaw na. lu tax ngeen yéex jóg. <clears throat> lu tax ñu yéex a jóg bon xam nga <clears throat> année deux mille vingt deux bi dafa xawoon surtout fin d'année bi par rapport ak élection. les euh, locales yi donc acteurs yu nekkoon ci comité yu bëre daanaka ay candidats la ñu woon wala ñu ngi nekkoon ci ci élection yi donc le temps ñuy terminer ñuy génn ci Covid 19 bu 2021 bi. Mm-hmm. bi ñuy mbas mi commencé de wàññeeku ñu jëm ci élection donc préoccupation yu bëre dafa visé woon ci élection locale yi bi ñu paree élection léegi itam gis nga ni pratiquement le pays est un peu au ralenti. Mm-hmm. les gens ñi ngi nekk di xaar yoo xamante ni ce sont des donc mm-hmm. loolu bokk na ci lu tax ñu yéex a jóg mais malheureusement euh, bi ñu xoolee situation nga xam ni des na deux mois un mois et demi on a jugé nécessaire de de de yëngalaat dossier bi mën ko taxawal au moins ne serait-ce que commémorer ko de manière locale inviter la presse visiter chantier yi fa jot a am waxtaan xool plaidoyer yoo nga xamante ni moom la dëkk bi soxla ñu mën ko waxtaanee mën ko àgg état du Sénégal ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom la ñoom la développement ndeer yitteel mhm. alors avant développement bi li waral euh, comité bi mooy talaatay ndeer euh, léegi nag dañuy dem démb gone gi nga xam ne mi ngi déglu xamul luy talaatay ndeer yéen tey comité bi ban liggéey ngeen di def ci wàllu historique pour que nit ñi mën a xam la xewoon démb waaw Fatou euh, loolu dinaa ci wax loo xam ni sax euh, bon ñun bu ñu man ndeer laa juddoo. Hmm. falaa yaroo falaa màggee falaa am kër sama papa mi ngi fa sama yaay mi ngi fa. donc euh, comme ni ma ko waxee léegi comité bi dafa commencé. 2020 hmm. bi ak 2021 bi Covid bi hmm. comité bi mu jotul def réunion yoo xamante ni. véritablement cellule cellule cellule boobu mënoon na ci taxaw. mais je dirais lu nga xamante ni man moom laa juddoo ak lu nga xam ni moom laa jàng ak lu nga xam ne suñu magu dëkk yi moom la ñu nekk li ci Talatandeer bi euh, donc on raconte un peu l'histoire bi mm-hmm. xam nga Nder euh, dafa nekk dëkk boo xam ni d'abord li ko tur bi fu mu jógee mm-hmm. après euh, bi empire du Ghana tase mm-hmm. ñu bëree dañoo jógee foofu ñëw vers ver vers Sénégal alors euh, am euh, groupe de personnes loo xam ni bi ñu traversé frontière bi dañoo ñëw ba dëkkuwaayu Nder du sax Nder actuel parce que Nder avant ngandu dëkk la woon c'était un gros village alors bi ñu demee foofu ñoom ñu toog fa chaque ngoon am na benn benn benn genre kéwal boo xam ni dafa am ay béjjën yooyu moo doon ñëw foofu di di rëdd béjjën bi ci suuf donc bu rëddee loolu ba pare dina am benn picc bu ñuy wax ndeer moo daawoon ñëw foofu tox toxoo ci béjjënu béjjënu béjjënu la mu rëdd li mu rëdd maintenant picc boobu mag ñi ak seen xam-xam ak seen setta tet tiktal ñu ni picc boobu picc wërsëg la picc boo xam ni daanaka fu mu nekk foofu dafay dafay naat population bi ñu ni ñoom foofu la ñuy des maintenant bi ndeer di dox di dox di dox ba am nekk royaume ba nga xamante ni euh, waaloo Euh, capitale du Waalo nekk jot na nekk fu ne. Mm-hmm. mais période yi nga xamante ni capital bi ndeer la nekk période boobu ci la talaatay ndeer bi amee. Mm-hmm. alors euh, talaatay ndeer bi. ni mu amee capital bi dafa daan wër. dafa daan wër mais période bi ndeer moo mujj nekk capitalu Waalo. donc bi loolu amee euh, les ennemis am na nag histoire bi raconté nañ ko nu ne. Hmm. am na version yu nekk da nga koy dégg mais ñun foofu sax dinaa fa ñëw après pour expliquer un peu ñun suñu attente par rapport ak comité bi yi nga xam ne moom la gën a bëgg hmm. euh, ci la euh, ci ñu am problème ak ak ak les morts du trasar hmm. donc euh, bi loolu amee ñoom moor yi am defet ci loolu waaw léegi bu problème saa yu ñoom saa yu ñu bëggaan ñëw pour pour pour attaquer Nder dañuy fekk armée Nder bi taxaw na dañuy fekk soldaaru Nder yi taxaw nañu donc ñoom amuñu chance pour gagner foofu alors ñuy gétte dëkk bi di di gétte dëkk bi di gétte dëkk bi ba yëg ni euh, bu euh, Braque du Waalo dafay dem buuru euh, gouverneur Saint-Louis daf ko mën a gan à Saint-Louis donc le Braque est parti avec ses soldats donc jigéen ñi des ci dëkk ba góor ñi desoon ci dëkk bi ñenn ñi dem tool ya ñeen ñi dem euh, nappi donc naar yi xam ni les ennemis xam ni fii jigéen rek ñoo fi des te pour euh, no fayu bu ñu demee mën nañu jàpp jigéen ñi def jante boobu jamono euh, daanaka royaume yu bëri yu nekkoon ci booru dex gi naar yi dañ leen daan jàpp yenn ñi dënn dëkk yi bu buñ leen daan taal ñii ñu jàpp seen jigéen ñi rey seen góor ñi def leen jàmm donc noonu la demee gars yi préparé wu pour ñëw jigéen ñi am ku doon nekk ci ci àll ba di taxan mat mm-hmm. mu seen poussière bu bëri di ñëw mm-hmm. ak ay fas yu bëri di ñëw mm-hmm. mu xam ne ñii ñuy ñëw du jàmm taxu leen jóg mu daw dem ci dëkk ba replier wax leen euh, ñi ma gis ñu ñëw ay noon lañu te bu ñu fi fekkee dinañu xeex ak ñun jël suñu alal mbaa ñu rey ñu wala ñu def ñu jàmm léegi nag boobu jamono Linguère Mbarka Dia moo fa nekkoon Linguère ba fa nekkoon Mbarka Dia la tudd. Mm-hmm. Linguère Mbarka Dia moom moo wax jigéen ñi dajale leen ñun ñëpp ne leen kat ñii di ñëw bu ñu fi fekkee dina ñu noot mbaa ñu rey ñu mbaa ñu def ñu jàmm léegi li fi sës mooy ne ñu sol suñu yëre jëkkër jël suñu armu jëkkër jël suñuy fasu jëkkër préparé taxaw bu ñu ñëwee ñu yaakaar ni ñii ay ay góor lañu. bi ennemis yi ñëwee après ñu ñu ñu ñu xeex xeex xeex metti paraît ba jigéen ñi repoussé. ennemis yi. ñu daw biñ leen dàqee ñu daw daw daw lu sore am na sax ci mag ñi ñu wax daw nañ ba booru Dagana. Hmm. Eh, kenn ci jigéen ñi mbaxaneem wadd après eh, ennemis yi geesu xam ni ñii ay jigéen lañu ñoom it ñu tourné waat jàkkaarloo ak ñoom di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba jigéen ñi seen munition jeex. Hmm. ñu daal di replier ñoom daw ñibbisi nee na bi ñu ñibbisee devancé leen. après Linguère bi mu ne leen fii moom lu fi sës mooy dee rek moo fi sës ndax ñii bu ñu jàppee dinañ ñu toroxal dinañ ñu yóbbu def ñu jaam te bu ñu defee jàmm ëllëg dina nekk histoire bu nga xamante ni suñu ay. suñu ay sët suñu askan du ñu am way bu rafet. Mm-hmm. après ñu ni nan moo fi sës mu ni dañuy dugg ci nekk ñu taal taal suñu bopp. Mm-hmm. bu ñu taalee suñu bopp saydaane yow mi nga xamante ni danga nekk jigéen wérul mm-hmm. ñu ñu denc la ndax bu góor yi ñëwee nga man leen nettali histoire bi nu mu demee donc ci la ñu dugg ci biir néeg di way seeni way saydaane ñu dugal ko ci biir kanaar yi après lingeer bi taal mbaar mi hmm. dugg ci biir ba ñu lakk ba nekk ba nekk doom après bi góor yi demoon tool yi ak ñi demoon dex ga ñëwee hmm. saydaane wax leen li am kenn ci ñoom jël fasam dem Saint-Louis bi mu demee fekk fa lu barak wax ko ni ko dëkk ba problème yi ñoo fa am sol braque bi ak soldat yi replier wu ñëw ndeer mm-hmm. bi ñu ñëwee ndeer Seydaan explique leen histoire bi ni mu demee yëpp mm-hmm. après euh, ñoom ñu préparé wu mm-hmm. armé wu dem fekk ji fekk ji noon yi après ñu xeex fa am fa victoire am na sax nu ko nit yi di woye Euh, naan euh, bi almaami demee ndeer ginnaaw barak la woon mm. jaalawaali fay na ndeer bi ndam la dellusee loolu sax histoire la beneen ci biir mm. histoire yi boo xam ni ah. peut-être euh, bu bu dul woon talaata bi mm. mën naa la gën a décortiquer jaalawaali moo jaalawaali nu mu demee ak xeex ba fa amoon ak naka la def ba ndam bu ndaw rek bon jaalawaal yi dafa dafa xam nga man bu doon sama gën sago waaw euh, ba beneen ba beneen. d'accord amul problème donc noonu la talaatay ndeer bi bi ñooñ bi ñu fayoo ñëw après ci la ci la talaatay ndeer bi loolu moom mooy indi. Mm. histoire talaatay ndeer bi. Mm. njàngat yi ñu ci mën a am nag daanaka jàngat yu bari la. Mm. wane na foofu jom wane na fulla wane na fayda wane na bañ ku la nooteel wane na bañ ku wàcc xas. ci yow ëllëg loolu dafay wax rek ni histoire boobu c'était le 7 mars 1820 1820 ak léegi ça fait 200 ans et ba léegi ñu ngi nettali histoire bi njàmbaar boobu bu doon leneen la itam ba léegi peut-être ñun bu ñu koy nettali kenn du ci fier ndax xaru kenn l'islam ñu ay jullit lañu mm-hmm. ñoom sax duñu woon ay jullit boobu mm-hmm. mais ñun ceddo ba fi newoon mm-hmm. mais tey jii nii daanaka naqar bu neex la ndax man ku ma xas wala ku ma bëgg wax dara ma ma bombe sama toor su ma ne samay maam ñoo taaloon seen bopp ngir bañ doon jàmm donc man valeur yu ma ci gis mm. mooy nit booy def mbir mm-hmm. sóoraaleel sa askan ëllëg mm. ndax ñoom dinañu taxaw am ci fierté mm. te xam naa ni ñooñu tey bu ñu leen génnee woon ci suuf teg leen ci kaw ñu gis seeni set gis seeni sëtaat dinañu xam ni ñoom li way bi ñu fi bàyyi woon ñu ngi ko topp ba léegi tey ndeer googu nga dëkk naka la ñuy dundee xew-xew bi est-ce que day feeñ ci seen dundin bés bu jot loolu nag euh, Fatou loolu mooy suñu problème ndax euh, Nder c'est un grand village de nom mm. mais très petit d'habitation et véritablement délaissé par les politiques waxal euh, Nder dafa rëy ci tur mais dafa tuuti ci mm. dëkkuwaay yi ndax mën naa ko wax ah, sañ naa ko wax te du wax naa ko fu ne bëri na ñoo xam ni dañuy mbubboo ni Nder laa bokk mm. alors que xamuñu sax suufu Nder ndax dafa ñuul wala dafa weex xamuñu ndeer ndax climat bi dafa sedd wala dafa tàng donc ndeer euh, bokk na ci suñu ay combat ñooñu di wax naan ñoom seen maam ndeer la bokk te mm. tëgg ay activité ndax bu dee dëgg rek mooy dëgg 7 mars bu ñu koy tëgg nit waru ko mën tëgg fenn fu dul ndeer kon 7 mars duñ ko defee ndeer 7 mars lañ koy defee ah, ñun suñ 7 ndeer lañ koy defee mais am na ñeneen ñu koy def am na ñeneen ñu koy def feneen fii ci Dakar ak ah alors que ñooñu ñëpp dañuy wax ni ñoom seen maam yi ndeer lañ bokk mm. te ndeer xamu leen ni dada ni deev bu ñu invité plateau télé wala bu ñu invité lu nga xam ne histoire Nder ñooñu la ñuy gis te boo demee Nder tey ji nga wax leen ñii dañ naan ñii xamuñu leen. Hmm. peut être nag seen maam Nder lañ bokk. mais man dama jàpp ni booy xeexal ay nit da nga war di dem ci ñoom. Hmm. nga wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ba nga xam ni ëllëg du ñàkk dina am ay retombé. Hmm. retombé yooyu mën a dellu ci. ndax dëkk ba ndeer boo fu bëggoon dem tey jii nii. véritablement boo dellu see dinañ la maase bay nga bay nga sonn yoon yoon bu doy waar lañ am yoon bu metti lu stratégique bu doy waar nga gis ndeer amul ndox diggante dex gi ak ndeer matul matul une minute trente de marche. kon daal ndeer tey dafa mel ni ndeer ba 1800. soxna ya taaloon seen bopp ñi taaloon seen bopp. ndeer boobu ba léegi dara changé amul dara lu fa am loo xam ne lu extraordinaire. tey ku ne cëpp ndeer di nga gis mandargaay la fa xewoon. ku dem ndeer ngeen fa genre. monument monument dara. lu bi lu fa am moom mooy euh, on a un muy guy ngaala. guy gu mag boobu ngay dégg foofu moo nekkoon ci digg ëttu ndeer. foofu mooy repère bi. Mm. comme ni ma la ko waxee sànq comité bi bi bi ñu defee 7 mars 2020. amoon na ay retombées yu commencé woon ñëw. Mm. ba nga xam ni ministère du euh, direction du patrimoine bâti mm. euh, créé na benn case nar fa def benn musée daanaka mi ngi ci phase finale. donc yooyu moo fa commencé ñëw mais à part loolu. véritablement lépp loo xam ni am na ndeer. c'est le ministre Oumar Sarr qui le faisait du temps du PDS parce que moom ndeer la bokk. Mm. bu dee wàllu ndox moom moo fi indi ndox bu dee wàllu euh, courant moo ko commencé woon mais ba muy ñëw fekk na moom nekkatul ci gouvernement bu dee yoon bi moom moo ko moom moom moo ko def donc bëri na ci loo xam ni moom moo ko def au niveau de Nder et environnant peut-être euh, bu fekkul woon moom donc ndeer dafa doon na gën a doon na gën a dellu ginnaaw. mais man aspect bi ma gën a soxal est-ce que tey ndeer mm-hmm. xam nga tey kuy dégg talaatay ndeer talaatay ndeer danga naan naa dem ndeer xooli mm-hmm. tey ku ñëw ca dëkk ba loo fay gis lu lay fàttali ni ay jigéen yu fi nekkoon daan nañu xeex ba dañoo taaloon seen bopp ab amul amul amul dara loo xam ni yéen ba ngeen juddoo it fekku leen mag nii ñun bi ñu juddoo mm. xam nga évolution day am nit yi di bay suuf si ainsi de suite ñun bi ñu nekkee xale dañ daan dem foofu ci guy gi di fa for ay perle di fa fay ay for ay tojutu ndaa di fa for ay hmm. affaire ñu naan leen yooya la waaw ñu naan ñu si yooyu la jógee te ba léegi nii sax ku demoon gas da ngay gis yooyu ñun ñun for nañ ko fa plusieurs fois ay peme am na genre xeer yoo xam ni amatul léegi foofu lañ ko daan foree dañ daan dem jóge bi ñu nekk ay vers les années quatre-vingt quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze on partait là di for affaire yooyu te ku masaan ñëw ndeer itam foofu nañ lay yóbbu mm. nga dem ci guy gi nga gis zone bi ñu wax la fii la mais amul woon dara lu ko matérialiser mm. à ay panneaux yu ñu doon def foofu ainsi de suite nga xam ni bu taw ñëwee wala mm. bu bu dee panneaux yu baaxul quelque temps après dafay disparaître donc loolu moo tax ñun suñu comité bi taxaw parce que dañu gis ni ndeer dafa war a dépasser fii mm-hmm. site boobu dafa war a nekk site touristique am case bu ñu mandargaal foofu mm-hmm. def ko clôture def fa ay salle de réunion def fa ay mbir nga xamante ni fukk nit waaye jóge ci Sénégal damay visiter ndeer mm-hmm. di nga mën dem ci case boobu mu am ay retombées yoo xam ne dina mën a dugg ci biir dëkk bi dugg ci biir commune de Gnitch donc loolu moo nekk suñu combat commencé nañ ko on travaille ñu ngi ci liggéey. mais bërëb parce que yaa ngi wax sànq mbirum bay tool man j'ai compris que xëy na suuf si ñu ngi koy jël yooyu est que bërëb ba ba tey ma nga fa. bërëb ba mi ngi fa. am na ñu ko am na famille bu moom foofu hmm. mais euh, après intervention yu bëri ñu ci wax hmm. zone boobu yëpp délimité nañ ko ko dañ koy def euh, site musée bi foofu lay hmm. nekk te kooku loolu ilaa yow mi diini dootul am lu dul patrimoine lay nekk patrimoine du de Nder wala patrimoine du Sénégal donc loolu moo tax ñu bëgg état dugal ci loxoom parce que am na loo xam ni état rek moo ko mën def am na loo xam ni yenn projet envergure lu nga xam ni véritablement foo mën dem danga koy gis état rek moo mën a dugal loxoom foofu te di bokk na ci yoo xam ni ay plaidoyer yoo xamante ni bëgg nañu état du Sénégal di dégg suñu wax. Mm-hmm. bay nga xamante ni lépp lu mu mën def day ci boole ndeer ci affaire culture lu muy man def ci affaire cosaan da ciy boole ndeer. Mm-hmm. alors est-ce que tey euh, am na loo xam ni euh, yéen euh, jàpp ngeen ne peut-être war ngeen ko apporter. si Sénégal ci wàllu culture ci wàllu histoire est-ce que yéen a ngi liggéey euh, pour que fu ñu soxla contribution ngeen taxaw indi histoire Nder surtout yéen waa comité bi. xam nga loolu bokkoon na ndeysaan ci mébétu le président Iba Der Thiam. Mm. ndax euh, en 2020 moi je l'ai connu wowoon naa ko téléphone. Mm. ci histoire période bi am Sénégal amee histoire général Sénégal ñu naan dafa am problème ñii seen maam yi kenn man bindoon naa ci Facebook hmm. ma ne leen ndeer ku na a ci feem histoire am dinañ jaar sa kaw hmm. ndax euh, mbir boo koy liggéey waruñu toog ci internet rek wala professeurs yi di leen interroger dañu war a dem ci ci base ba hmm. dem ci dëkk ba waxtaan ak ñoom histoire nag ni koy raconté ki nekk ci histoire bi mën na tagg ay maamam mais am na loo xam ni quand euh, waa dafa yaatu. am na historien yu fa nekk ñoo xamante ni bi ñu juddoo ba léegi ñoom lañ daan gis ñuy raconter histoire du donc ñoo ñoo ngi am projet yoo xamante ni dañ leen di waaye waxtaan ak ñoom gën a reconstituer l'histoire du Talataynder parce que l'histoire du Talataynder c'est une histoire parmi l'histoire du Waalo. donc histoire Talataynder boobu benn la ci ci histoire Waalo. donc Waalo dafa yaatu woon Waalo dafa demoon daanaka ba Jolof. waalo bokkoon na ci empire yi gën a mag donc ñu ngi liggéey ñun nag ñi def histoire ci ñun bëriwul. Hmm. ku ci mel ni man man je suis informaticien du ma historien. mais quand même je m'efforce à lire à comprendre à hmm. demander. di déglu mag ñi di déglu mag ñi di waxtaan ak ñoom bay nga xamante ni ëllëg ku ma dëkk micro wala fu ma mën taxaw su ma raconté histoire Nder. dina am fu wér fu ma ko teg. li tax ma laaj la loolu mooy version yi dafa bari foog naa ne wax nga ko off la wala bi ñuy tàmbali waxtaan bi version yi dañu bari donc est-ce que yéen yéen a ngi liggéey ci lenn loo xam ne lu crédible la loo xam ni moom amul werante que ni mbiram ndeer nii la demee. waaw loolu moom laa lay wax boo déggee man la waalo dafa yaatu. loolu bokk na ci. Mm-hmm. parce que ce consensus là il faut que nous wàllu. ñu dajaloo. Mm-hmm. def dajale boolee waalo yëpp. ñu def forum wala quelque chose boo xamante ni ça par là uniquement. loolu du liggéey bu ndaw de. lu liggéey bu ndaw am na ñu ko lancé woon en mille dix huit ou deux mille dix neuf au Grand Théâtre mm. mais je pense que amul suivi alors loolu lu ko waral mooy les politiques ñoo ko jiite woon. dugaluñ si sax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon ndeer. Mm. ñoo dëkk ndeer alors ma yaakaar ni loolu c'est un travail colossal à long terme des historiens des intellectuels. Mm. ay boroom xam-xam yi mag ñi ñu boole leen ñëpp ñu xool véritablement lan moo nekk ci histoire Nder bi mu tëgg ñu tëgg ko. Mm. soumettre ko état du Sénégal wala wala groupe bi yor kii reconstituer histoire générale du Sénégal nga xam ni kenn dootul tergiverser. Mm. parce que ñun euh, ci rajo laay wax. mais am na ñun beneen. façon bu ñu expliquer ñun. Mm. mais euh, véritablement mënoo yee di wax di wax yooyu. li nga xamante ni ëllëg si biir day nekk mig mag yoo xam ni du day waar la donc li ñu mën di nettali ci histoire bi mooy li ma nettali léegi mooy moom la duñ jàngale ci école yi mm. moom la ñu wax boo interroger internet loolu lañ lay jox mm. mais soo demee ndeer wala nga dem toog ku nekk ndeer ku nga xamante ni daf lay wax te yàlla tax mën na la nettali beneen histoire nga dem Richard Toll wala xuma mu nettali la benn histoire te histoire boobu danga mën baax bi léegi ban moo ci bu baax bi. <laughs> bi ngeen di wax wala ba ñu mën a nettali ca. xam xam nga man histoire bi sax boo déggee ma lay wax loolu. Hmm. mooy dafa am loo xam ni moom la état du Sénégal ba livre yi moom la ñu jàngale. Hmm. te tey man intellectuel la hmm. am na lenn loo xam ni mënuma ko wax te awma ci teguma ci ay firnde yu leer yoo xam ni ëllëg si biir véritablement dina am document bu firnde loolu. donc. dañuy sukkandiku ci histoire bi nga xamante ni moom laa nettali léegi ak moom la ñu mag ñi nettali ak moom la histoire wax ëllëg si biir bis bu ñu demee ba loolu forum di waalo boobu nga xam ni c'est pour la reconstitution de l'histoire du Talaatay Nder mm. bu fa génnee man ñeme naa taxaw fu nekk wax loolu ñeme naa taxaw fu nekk expliquer loolu mm. léegi mag ña ca dafa am ñu cay wax leneen lu wuteeg yow li ngay wax non moom laa la wax léegi ma ne la li may wax nii boo demee ndeer lii lañ lay raconté. histoire bi ma raconté léegi. boo demee Nder moom lañ lay raconté. mais version yi ni ñu ko déggee noonu. Mm-hmm. am na yeneen version. am na yeneen version par exemple Boubacar Bari li professeur Boubacar Bari xam nga ko. Mm-hmm. kooku li muy wax ci histoire Nder bëri na ci loo xam ni am na lu ci nekk dëgg. lan lay wax bon mooy histoire bi ma la nettali léegi nii donc du coup moi je pense que je lance un appel ça à les walu-walu. Mm. histoire bi. talaatay ndeer bi ñu mën ci taxaw. Hmm. génne ci benn benn version boo xamante ni. ñëpp xam xam ne lii la. ñëpp xam ni histoire bi lii la. Hmm. loolu nag du liggéey bu ndaw parce que mag ñu bëri dem nañu. Hmm. ñu wax ko mag ñu bëri dem nañ boo demee ci dëkk yi. daanaka doo fa gis ko am 75 ans. 200 ans moom. non non amul yaakaar naa ne desatu fe. ñu fekkee woon yëf yi moom dem nañ. non na seen i sët yàgg moo tax moo tax ñun loolu véritablement war nañ ko changer. bi nga xam ni suñ mag ñi dans leur vivant dinañu wax ñu ñuy bind. di denc parce que bu yàgg ba li ma lay wax nii. Mm. man ça fait trente ans biñ ma koy expliquer. Mm. bon mais dama ko jàpp sama bopp ba léegi. kenn déggaatuma ko fenn li histoire ba nettali nii. Mm. daanaka bi ma déggoon bi may ay 92 looy gaa ko déggoon ba léegi moom laa jàpp sama moom laa jàpp sama bopp. alors sànq laaj naa la benn laaj dama ciy ñëwaat est-ce que tey euh, Nder na askan way dundee. xam nga yow nee nga sànq ku la bëgg xas danga bombe la tox ne ko sama maam moo taaloon boppam. Mm-hmm. est-ce que tey état d'esprit boobu moom la waa Nder nekkee. moom la ñu nekkee boo demee Nder gis nga liñ naan góor a mën jigéen dañu koy bañ ba sangoo suuf. Mm. man damay dégg sama yaay buy waxtaan sax wala buy nekk di liggéey liggéey yu ndaw yooyu da koy murmurer mm. góor a mën jigéen dañu koy bañ ba sangoo suuf Linguère Mbarka ja moo xeexoon ba jaaxal gaañe mm. loolu dafa am ba léegi moi je le góor la mais jigéen ñi nekk ndeer jigéen ñu man góor lañ man j'ai vu ba tey ji ni la adduna bi ni mu doxee nii damay gis ndeer jigéen bu xëy damay am fierté wax ko hmm. parce que sama yaay daf ko dund sama ñeneen samay tànt samay bàjjen samay maam dañ ko dund góor jigéen day xëy dem tool yi liggéey hmm. ba midi mu wàcc ñëw taal añ fajar la ñuy def fajar la ñuy dem hmm. ñii ñi ngi ci commerce ñii ñi ngi ci tool yi ñii ñi ngi jëf leneen wàcc ñëw togg añ pare gontu dem liggéey lu mu am mm. ñëw def ci biir kër gi ku góor ki bu amee baax na bu amul mu yëkkati def ci biir kër gi loolu nekkul ni dama koy wax parce que euh, góor la mm. parce que bu doon bu doon li nga tudd dëgg demee taxaw ni góor yi dañu kiy góor mm. ndeer jàmbaar lañu ay góor lañu dëgg mm-hmm. mais jigéen ñi taxawaay bi ñu am véritablement man loolu rek ndeer rek laa ko. en tout cas daal booy tukki ba romb fajar boo yooyu moom jigéen ñi rek ngay seen ca tool ya. ñii boot doom ñii boot doom ñii ji donc ci tool ci toolu ceeb yi ci toolu pataas yi toolu lépp loo gis foofu commerce sàmm lépp jigéen ñi elles paxtu ñoom lépp la ñuy def man ba ma juddoo ba léegi man de loolu laa gis. tey loolu valeur la yoo xam ne xëy na nag jamono bi toll na foo xam ni euh, liñ naan. Euh, benn loxo mooy takk mhm. tubay mais ñaari loxoy takk tubay mooy takk sër mhm. mais loolu lu am la mhm. te loolu euh, jigéen ñi nekk ci taax yi war nañu war nañu war nañu roy ci loolu te roy boobu noonu du sëy bi kese parce que sëy euh, jaamu yàlla la waaye am na situation fu muy toll euh, dañ naan jigéen ñi jàng ñi seen classe gu jàng yi. Mm. dañ naan bon c'est c'est l'homme qui assure tout wala <laughs> jàppal fii ma jàppal mais ñoom sérieusement je le dis haut et fort. Mm. ñoom seen taxawaay euh, vraiment taxawaay bu rafet loolu te am nañu sutura am na ñu gëm-gëm te am na nañu diine respecté nañ seen jëkkër. Mm. loolu moom je je je tiens à témoigner cela parce que je l'ai vécu. Mm-hmm. depuis mon enfance ba bi may génn di jàngi ba ni ma nekkee mag bañ na ba comme ni ma la ko waxee léegi valeur yooyu moo tax sama doom ba Linguère laa ko tudd. Linguère nga ko tuddee. Mm. macha allah alors Linguère na dundu dundute barkeel euh, léegi nag xew-xew boobu yow yan enseignement yan jàngat nga jàpp ne moom lañ ci war a tiire jigéen ña taaloon seen bopp ca ndeer boo koy nettali deux cents ans ginnaaw euh, xew-xew ba jigéen ñi nekk Dakar ak ña nekk ndeer ak feneen ak feneen ci sa xalaat ñu ci war a jàngee. waaw man bu ma ci xalaat j'ai le cœur meurtri parce que taal sa bopp. Euh, dafa metti trop boo lakkee rek di ataaya nga lakk rek da da ngay da mais damay wax ñoom li tax ñu def ko tey ji ça nous rend fort ça nous rend fort de telle sorte que kenn duñu xas beneen bi ci des itam ça nous rend ndax dinañ xam ni ñii amoon nañu dignité amoon nañu ngor am na fii léegi nga gis ci film yi walla nga gis benn affaire euh, ñuy agressé nit mu nangu mu noppi docile ñu def ko naka sudul noonu après mu dem ñooñu ay jigéen lañu woon ñu taal seen bopp ngir bañ doon jàmm taal seen bopp ngir ëllëg seeni seeni njaboot seeni sëtaati sët bañ am xas-xas bu rafet donc dinaa ci tirer enseignement boo xam ni nit danga war a gëm sa bopp nit da nga war a am dignité rawatina nag boo nekkee boo nekkee jigéen donc euh, jigéen ñëpp war nañu te loolu euh, jigéen ñooñu am na ñeneen ñu mel noonu ci Sénégal ndax comme ni ma ko yàgg di waxee Euh, bu dee référence ci jigéen. Mhm. am nañ ko suffisamment. Mhm. ndax ci côté diine bi ñi fi gën a ñi ñu gën a ràññee. Mhm. seen jigéen seen seen ay yaay. wala seen ay jëkkër ay nit yu mat lañu woon. boo demee Touba Serigne Touba. xam nga maam Jaara Buso nga dem Tiwaawan maam faa war de wele waalo waalo la. nga dem Casamance Aline Sitoé Diatta nga gis ni Sénégal jigéen ñooñu bu dee référence lañ bëgg rek. on en a suffisamment. Mm-hmm. ci côté diine ak ci côté jàmbaar ak ci côté gëm-gëm ak ci côté bravoure du de manière général mm-hmm. donc man jigéenu Sénégal ñoom li ñu war a gën a roy ci ci ci jigéenu ndeer mooy njàmbaar mm-hmm. mooy jàmbaar fàq tëdd mooy am jom mooy am fulla am fayda bañ kenn ku la yàpp bañ kenn ku la yàpp nag ci biti mais waxuma ngeen di rayante ak seen jëkkër wala bi <laughs> def parité yow mi euh, Ousmane ba fa muy jeexee baax na danañ ci ñëwaat. alors euh, célébration bi bu ngeen di màggal xew-xew bi naka ngeen koy defee euh, yaa ngi wax sànq ne am na ñu ko daan def. duñ ci boole ñeneen yéen ban particularité comité de pilotage bi ngeen indi ci xew-xew beeg ni ngeen koy amale waaw xam nga Fatou. particularité bi déjà mooy yaatal nañu mbir mi dugal ci doomu wàllu yëpp waaye leneen li nga xamante ni moo ci bokk mooy euh, dañuy def journée bi dans la journée am benn programme boo xam ni euh, ay jigéenu waalo ñoo ko defoon mais dañu ko yaatal fësal ko ci pël naar wolof ñi dëkkee ndeer actuel ndax bu ñu demee ci journée bi le matin dinañu ñaanal way dawlu yi ci ndeer yépp wàcce kaamil ñaanal waa dëkk bi après bu ñu paree ci kaamil bi ñu def visite dëkk bi xool véritablement yan aspect lañ fi gis yoo xam ni ci suñu perspective yi di ñëw dinañ ko ci mën a insérer après bu 13 heures bu ñu xewloo ba pare trois heures ñu commencé affaire yi pël yi def seeni ay cosaan. Mm. naar yi def seeni ay cosaan pour wax la ni la Sénégal benn bopp la. Mm. histoire bi buñ la expliquer fa mu jóge woon. Mm. Euh, léegi ñu nag pël naar wolof. ñoo ñoo dëkk. te waalo waalo naar ñoo doon xeex. donc nga xam ni. Euh, mbir ak évolution day. am kon melting pot la ñëpp fa nekk. Nder melting pot la. man am naa ay xarit yoo xam ni naar lañu. Hmm. jaral naa leen man dara doon ñëw ñu nangu ñu ñu ko. Hmm. am na ay xarit yoo xam ne ay pël lañ. Hmm. pareil donc euh, melting pot moo fa nekk ñu dëkk ci benn benn benn benn dëkka dëkkuwaay boo xam ni bu am solo. donc naar yi def seen activité troupe théâtral bu Nder def. théâtre bi expliquer comme li ma la raconter sànq ci histoire bi ñu joué ko en théâtre bu ko joué en théâtre par autorité yi def seen ay allocution chef de village représentant femmes yi jeunes yi maire bi ainsi de suite après ñu def euh, scénario taal case bi mm. après fête bi jeex maintenant en ce sens euh, comme ni ma ko waxee sànq euh, li ci ëpp solo ak li ci gën a am doole mooy dañu bëgg féetewuñ ko pour rek di way ak di fecc mm. mais dañu bëgg saa yuñ si paree mm-hmm. balaa muy dellu siwaat comité bi def foofu dara soit ci njàng mi wala ci dëkk bi wala ci jigéen ñi wala loo xam ni rek njëriñ la boo xam ne nii communauté pilotage euh, talaatay ndeer moom moo ko def. moo ko def lan ngeen di xaar tey ci euh, état bu Sénégal. waaw loolu nag euh, état bu Sénégal ñi ngi xaar ci moom lu bëri. Mm. fekk nañu ci liggéey bi ndax dañ bay sa tànk. Mm. te état bu lay dimbalee day fekk nga commencé benn mbir mm-hmm. yàgg nañu yàgg nañu di lancer l'appel à l'état Sénégal di ko wax ñun 8 mars lañ xamoon mm-hmm. Sénégal képp kuy jàng 8 mars nga xam mm-hmm. parce que 8 mars dafa gën a rëy rek talaatay alors ñun am suñu journée muy 7 mars 7 boobu noonu non seulement c'est dédié aux femmes de Nder mais Sénégal mën nga ci boole jigéenu Sénégal yépp ñuy lancer appel à l'état du Sénégal set mars boobu mu dugal ko ci ci ci agenda culturel lu Sénégal ba nga xam ni euh, chaque année dañuy def pèlerinage en terre nit yi di jóge fépp ci Sénégal d'ici et de la diaspora di dem ndeer di màggal jigéenu ndeer yooyu ay retombées di am ci dëkk ba waa dëkk ba di gis seen bopp ba ndeer ni ñu koy wayee wala koo wàññi ñaari nit ñetti nit naan samay maam ndeer lañ dëkk bu ñu demee ndeer du ñu sëgg donc loolu volet boobu ñu ngi ciy xaar état du Sénégal beneen bi ci des. mais loolu nga baal ma si dog bi boobu ponk dama yàgg dégg ñu di ko plaider. ñu dugal set mars ci agenda culturel bu Sénégal lan moo tax pour yow ba léegi sotteegul. ba man dama jàpp ni rek euh, soit message bi àggagul ci l'état ci le président de la république. Mm. wala am na lu mu ci wax loo xam ni mais man de bu ma si man demoon ba jàkkaarlook moom li ma koy njëkk wax dina bokk ci. monsieur le président 7 mars dugal ko ci agenda culturel lu Sénégal. jokkoo gu leen ci ak ministère de la culture. ministère de la culture si si suñu TDR yi joxoon nañu leen ko. mais ba tey amagul suivi bu mat. Hmm. moo tax ma jàpp ni euh, taal bu teye tàkk fu ne nga koy uppee. Hmm. ñun duñu tàyyi di ko wax heure bu ñu amee opportunité jàkkaarloog. autorité heure bu ñu amee opportunité ñu tàllal ñu micro. Hmm. bu ñu laaj ñu ci ndeer dinañu wax loolu. beneen volet bi état du Sénégal del delluwaat ci ndeer jàppale ndeer. parce que yoonu ndeer bi metti na trop boo xam ni pour nga ndeer dafa nekk ci zone agro-sylvo-pastorale nga xam ni bay ak sàmm moo ëpp doole donc ku wax bay ak sàmm wax yoon ku wax bay ak sàmm wax commerce ku wax bay ak sàmm wax ndox alors ndeer nekk zone boo xamante ni pour nga accéder ndeer ak foo mën a jóge nag pour dem ndeer hmm. di nga am difficulté pour dem boo jógee Richard Toll foo war a def vingt minutes di nga fa def une heure trente nga jóge Ndeer war a dem Louga nga xamante ni mën nga jóge Richard Toll sans nga jaar Saint-Louis ba àggul Louga te di nga di nga di nga di nga di nga di nga def benn benn économie de cent kilomètres boo jóge woon Richard Toll jëm luga man ma jóge Richard Toll jëm Louga jaare Ndeer donc yoon boobu ñu ngi ñaan état du Sénégal mu defar ko ndax bu ko defaree dina dimbali Ndeer dina suqaliku. Hmm. beneen bi ci des commune u bi nga xam ne foofu la Ndeer bokk benn collège classique la am ak benn collège franco arabe. commune bu regroupé plus de quarante neuf villages am benn collège ça c'est un problème ndax bëri na ñoo xam ne seen jàng yàqu na dañ daan am BFEM wala ñu am entrée en sixième ñu yóbbu leen Richard Toll amuñu fa parent wala ñu yóbbu leen Saint-Louis amuñu fa parent bu ñu defee une année seen jàng dafay yàqu donc état du Sénégal ñu ngi koy lancé appel mu mën a indi beneen collège au niveau de Nder wàllu santé ñiit ñaari poste de santé la benn poste de santé moo fa nekkoon ak benn entreprise bu nekk foofu mu créé fa beneen poste de santé nga jël 49 village ci ñaari poste de santé poste de santé yi xam nga ndegam poste de santé Dakar yi ñu am ay manquement waxuma la poste de santé yi nekk ci village ndeer boo fa demee courant bi lakk fay lakkul fay la maanaam ah. système la boo xam ni da ngay jënd carte boo jë comme nga jënd carte crédit nga dugal 5000 bu ñu wax la délai bi 20 mois la bu mois yi jeexee boo consommé woon cent franc dañ lay def tabula rasa les quatre mille neuf cent nga jël loolu ban façon facturation la. yëpp di carte carte xam nga fii da ngay recharger nga consommer ba mu jeex. fee carte bi dafa am délai. ñan ñoo yor boobu. Comacel l'entreprise bu yor loolu sa s'appelle Comacel la tudd. Comacel Comacel benn société marocaine la. Comacel ñu yor loolu nous l'avons clamé partout dénoncé nañ ko partout. mais ça continue toujours benn village mu ñu naan ñi kese moo am courant Senelec boo xamante ne ay facture la ñuy fay wala dañuy dem jënd carte comme ñi ndeer lii la ñu am commencé mi commune de Gnith les 49 villages pratiquement 48 yëpp même système boobu la ñu am xam nga loolu dafa metti beneen bi ñu des courant mbedd yi waa dëkk bi ñoo koy fayal seen bopp par dëkk kër ñooy fay recharger pour courant mbedd bi courant éclairage public bi ñoo koy fayal seen bopp beneen bi ci des mooy ndox waalo fu ñu ko wayee ni ah. waalo ndox maa ngay wala ngan hmm. ñun dañu mar ah. waalo boo fa non je vous dis je le dis ici à waalo euh, man sama kër ak dex gi matul cinquante mètres bu ndox taw bi bëree lool ndox mi bëree lool hmm. lag bi lii ni lii bi yéeg ndox mi day dugg suñu kër hmm. ñoo mujjee ci kër yi jëm ci côté dex bi alors ay robine mbedd la ñu am muy ñaari robinet mbedd donc nous lançons un, un appel à Sénégal que ndox yooyu mu dugal ko ci kër yi parce que population yi ñaanuñu ndox bi. ba tey jii nii. ba tey may waxee yow man suñu kër amul robinet robinet mbedd ngoon gi sama rakk yi ñooy jël seeni bidon dem ci robinet ba te loolu grâce am au ministre Oumar Sarr Temps yi mu nekkee moom moo indi foofu ndox. robinet mbedd robinet mbedd yi. alors encore un appel au ministère chargé de l'eau mu dimbalee ñu avec l'appui de ses directions. avec la mairie ñu jàppale ñu ba dugal ndox yi ci biir kër gi ñooñu rek ñoo am ñooñu rek sax ñoo ko ñoo ko mën mm-hmm. mais ñooñu nga xam ne am nañu robinet mbedd am na dëkk yoo xam ne ba léegi amuñu ndox amuñu sax ba léegi foofu la ñuy duyee dem di kii te loolu moi je le dis pas pour la politique mm-hmm. mais je di dis parce que nit yu nekk mm-hmm. population yi dañ leen war a delloo gannaaw dañ leen war a delluwaat jox leen li ñu moom parce que yooyu ay besoin naturel la lu mel ni ndox lu mel ni courant yoon santé école yooyu population yi dañ ko war a ko am. te loolu war nañ ko mën a am war nañ ko mën a am beneen bi ci des muy euh, muy wàllu école wax naa ko tout à l'heure am na village yoo xam ni seen école yi dafa doy waar. école u Ndeer ba boo fa demoon dafa dañ ko mujj toxal sax ndax xorom si. moo yàq zone bi parce que CSS dafay dugal euh, eaux usées yi ci dex bi loolu noonu dafa dem ba pratiquement léegi. tifaa bi dafa dafa sax ci booru dex bi ba nga xamante ni fu nit yi mën daan def épanouissement mënatuñ ko def alors yooyu ce sont des programmes yoo xam ne ce n'est rien pour l'état du Sénégal mm. mu jàppale population yi du ndeer kese boo demee ñii nga dem île ba nga dem yeneen dëkk yi cañal de bi ci biir àll bi c'est tout ce problème là euh, baykat yi pareil parce que baykat yi ñoom ñooy gasal seen bopp canal mm. alors nous avons la la la SAED au niveau du département niveau de Saint-Louis donc baykat yi ñoom ñooy gasal seen bopp kanaal donc loolu ñu lance ne appel à l'état du Sénégal au ministère de l'agriculture mu dimbali baykat yi gasal leen kanaal yi draguel leen ko ba ñu dem ba ci kaw nga xam ne dinañu mën a bay di bay di dundee mm. bu ñu bayee ba pare ñu dañuy gas pour ndox mi yegsi pour ndox mi yegsi te dina toll benn période ci biir année bi liiw dex gi day wàcc te bu wàccee kon canal yi ndox mi du dem mm. te bu demulee ñun foofu irrigation la ñu am 10 mois 12 mois sur 12 mois mën ngay bay donc du coup foofu itam c'est un cri de cœur boo xam ni véritablement bëgg nañu état du Sénégal jàppale ñu ci ndox mi mën dem ba ci kaw parce que commune cent Gnick 844 kilomètres carrés la kon xam nga commune bu vast la mm-hmm. li population yi soxla mooy nañ leen indil ndox indil leen affaire ba euh, sàmmkat yi pareil mm-hmm. ndax pàmmkat yi di ngay gis fu ñu soree pour ñu dem nandal seen jur yi problème la ñu créer leen ay forage au niveau des des des des de leur de leur de leur de village mm-hmm. donc la yoo xam man bëggoon naa ko passer le message pour que véritablement euh, état bi bàyyi ci xel état bi mën leen jàppale euh, man conseil municipal laa ci ci ci municipalité bi euh, yor naa sax commission ci conseil municipal bi donc on travaille ñoo ngi ci commencé liggéey ci waxtaan ak le maire di ko féliciter au passage mm. xam ni Euh, ñun wala bu doxee ñun ñoo ko doxal. Hmm. wala bu delloo ginnaaw ñun ñoo ko dellu ginnaaw mi am na foo xam ne ñun foofu la ñu yem. donc suñu doole fa la yam hmm. donc état rek moo mën a am taxawaay boo xamante ni mu xëy tay tay rek jël benn mbir changé ko. changé ko léegi yéen comité de pilotage talaatay ndeer bi seen xeex dangeen ngeen cee nar a dugal lii nga fi lim yëpp jafe-jafe yi. bien sûr ndax euh, comité de pilotage bi bu woosoo histoire u talaatay ndeer. Hmm. histoire bi dañ koy nettali ak euh, di jëmmal foofu mais su histoire bi siiwee te population yi seen dundin changé mm-hmm. euh, daanaka euh, du am solo. donc ñun moo tax vole yëpp comité bi. Mm-hmm. peut-être objectif bi mooy talaatay ndeer bi ñu jëmmal ko. Mm-hmm. mais li ñuy dund ñun ñoo koy dund. ñun waa comité bi ñooy dund def jafe-jafe yooyu ñuy dund mm. donc mënuñu nekk di xeex histoire boo xam ne ay maam ñu deux cent ans deux cent ans te duñu plaidoyer loo xam ne léegi kon yéen da ngeen bëgg jàpp ci histoire boobu musée bi taxaw bu ko defee dem mu def dëkk yi nga fi lim yëpp saafaraw exactement gis nga tey comité bi euh, euh, musée boobu bis bu taxawee ba Nder am ay am nekk village attractif mm. obligatoirement nga xam ni ah. yeneen yëpp day ñëw yeneen yëpp day ñëw day am ay touristes yu nar a ñëw te ku wax touriste di nga wax ay auberge di wax ay hôtel di nga wax yoon di nga wax yeneen te état du Sénégal bu fa amee njëriñam même bu fa amul njëriñam sax man dama yaakaar ni daf ko war a def parce que amal na day nekk besoin population bi donc dañuy jàpp ni ñun à partir de l'histoire waxuma la ndeer kese mm-hmm. mais waalo mën na ci mën na ci changer mën na ci changer parce que maa ngi féliciter le ministre Oumar Sarr de passage avec son directeur de cabinet actuel et ancien directeur de cabinet c'est son nouveau soo son actuel directeur de cabinet mm-hmm. am na projet bu ma wanoon mu ni ma ministre mu ma dafa amoon yéene def village ndeer mm-hmm. maanaam un autre village boo xam ni ay partenaires ñoo ko waroon def di fa jouer théâtre nga xam ni dañuy reconstituer le village de Nder avant mm. comme ñi am Hollywood wala affaire yooyu. defaraat ndeer ca boppam nga xamante ni noonu lay mel mais malheureusement période bi ñu koy def leen acteur euh, cinéaste bi waroon def réaliser affaire yi par la suite il m'avait même envoyé le mail. Mm. je l'ai lu après il mu nekk loo xam ni être bu amoon boobu jamono c'était mm. vers les années 2010. xëy na ngeen jàpp boobu projet xalaat la itam. waaye xalaat le projet bi le projet est toujours avec moi. et euh, lii bu ko Covid 19 bi dafa ñu xawoon relancer. ci lu bëri daf ñu freiné woon. Mm-hmm. donc xëy na lii bu weesoo on l'a dit dans nos groupes on l'a dit dans nos que bu ñu paree talaatay ndeer bi la le lendemain rek. Mm-hmm. dañu war a def euh, beneen perspective liggéey. Mm-hmm. loo xam ni deux mille vingt trois 7 mars 2023. Mm-hmm. dina fekk ñun avancé nañu lu bëri ci ndeer avancé nañu lu bëri ci gox bi. alors ban njukkal nga jàpp ne ndeer amel na ko jigéen ña taaloon seen bopp mais Sénégal itam amel na leen ka lan nga jàpp ne njukkal la lu ñu leen yoreel war leen ko delloo. bon njukkal gi ñu leen yoreel enseignement yi nga jëlee ci taal seen bopp boobu rek war na tax euh, képp koo xam ni yaa ngi gis euh, ndeer wala nga dégg ndeer nga war a nga war a fexe xalaat ba dooleel jigéen dooleel jigéen du yéen ni ngeen koy xalaate yéen paritaires yi yéen femmes féministes yeeg yooyu man je pense que dooleel jigéen mooy nga nga yor ko yiir ko aar ko lépp lu fu bëtam xonqee nga mën ko ko nga mën ko ko dañal dindil beneen bi ci des mooy ndeer en personne suñu maam yooyu taaloon seen bopp yi ma fi lim yépp ci jafe-jafe état bi war na ci taxaw ba nga xamante ni ëllëg si biir bis bu yàlla defoon kenn ci ñoom judduwaat ba ñëw fi dina nii man li ma sacrifié woon taal sama jaroon na ko donc man ci côté boobu laa gis ni état lu mu war a mën a njukkale jigéen ñooñu mooy mu taxawu ndeer ci côté info ñu may jigéen ñi xaalis wala ñu jox leen dara. côté infrastructure dem beeg dikk bi nañ ko taxaw côté ndox côté électricité côté santé côté éducation. Mm. côté agriculture. et loolu du Nder kese et pour tout le Sénégal li nga xam ni moom la président Macky Sall def ñu koy féliciter de passage mooy dëkku diine yi nga xamante ni euh, ki dëkku kilifa diine yi nga xamante ni mën nañu rénover mu def ko ci dëkku culture yi nga xamante ni chaque année comme ni ma ko waxee léegi day am pèlerinage à au niveau de Nder mu nekk loo xamante ni événement bu rëy lay nekk nga xam ni Sénégal euh, dina dem ba 7 mars bu jotee à l'international dañ koy commenter te mën a nekk nekk ça ne demande rien lu dul mu am yitte boo xam ne président jox na ko waa Nder jox na ko waa Sénégal rien que pour xool yeneen jigéen ñi nga xam ne ay héroïnes lañu ñu woon au niveau du Sénégal ñu jëloo leen njukkal à travers de l'histoire du Talaatay Nder. jigéenu Nder yi tey nag loolu war a njukkalee ña leen fi jiitu de. ñoom xanaa roy ci ñoom ci lu baax ci jàmbaar. te ñi ngi ci. roy ci ñoom ci ngor. Mm. roy ci ñoom ci dignité. effectivement fexe daal ba lépp lu nga xamante ni daan nañ ko wax jigéenu talaatay ndeer ñii lañu ku leen gis xam ni ñii jigéenu talaatay ndeer te ñooñu ñi ngi ci. Hmm. ndax xam naa ni euh, fala juddoo comme ni ma la koy waxee fala màggee te xaaruñu ci état dara. Hmm. xaaruñu ci euh, góor dara ñoom dañuy amal seen bopp. yoral seen bopp liggéeyal seen bopp ñafeel seen bopp te waxuma ko à la rajo pour leur jeter des fleur mais lu ma dund la te lu ma gis la. Mm-hmm. jërëjëf Ousmane Bencoy ñu bàyyi la rek nga jeexal xëy na bu dee am na loo bëgg a wax te laaju ma la ko <laughs> ci ndeer. wala ci jafe-jafe xanaa lap l'appel rek. Mm. ndax euh, comme ni ma ko waxee yàgg nañ ko def. Mm. suñu maam yi ñoo ko daan def man bi may nekk xale sama yaay mas na déguisé wu sax comme comme ren yor fas bi ñu duggee ci néeg bi di ko taal dama daw di jooy. pour man sama yaay day dem. Hmm. donc après par la suite la door a comprendre ni dañu defar beneen porte. Hmm. ñoom bi ñu duggee ci néeg ba ñu taal ko ah, dañu jaar ci beneen porte bi dem. alors euh, li may lancé mooy ñiy tudd naan seen maam ndeer la bokk. Hmm. ñi nga xam ne dañu wax ndeer lañ bokk tey intérêt ndeer moo leen tax a jóg. nañu ñëw ndeer waxtaan ak waa ndeer jàppale waa ndeer. ñi nga xamante ni ndeer la ñu dëkk wala ci gox ba lañ dëkk nañu s'unir autour de l'essentiel pour à partir du talaatay ndeer bi mu mën a nekk loo xam ni njëriñ li ci Sénégal njëriñ li ci Waalo njëriñ li ci ndeer donc je lance un appel à tout le monde à tous les fils et filles du ndeer ñu nga xamante ni de près ou de loin talaatay ndeer bi yitteel na leen am nañ ci sentiment même bu ñu bokkul ndeer mm. ñu xam ni jigéen ñooñu war nañ leen war nañ leen war nañ leen delloo njukkal. ren dafa nar am particularité wala na nga daan def rek ngeen dañ leen daan nuñ daan def rek nañ doon def. à part euh, comme ni ma ko waxee tout à l'heure visitu visitu chantier yi. loolu donc euh, loolu moo nekk sama mot de final di remercier le waa ndeer ci seen bopp. di sant euh, jigéenu ndeer yi bu baax di sant góoru ndeer yi bu baax di sant comité de pilotage bi di félicité de passage euh, le ministre Omar Sarr nga xam ne mësuñu bàyyi ci liggéey bi il nous aidait il aidait Nder et il a fait beaucoup de choses à Nder ak yeneen autorités yi nga xam ne ay waalo waaloñ wala dëkkuñu waalo te bisu talaatay Nder bi ñoom dinañu jël seen alal di ko ci def wala jël seen xam-xam wala jël seen moyen donc beneen fi na may daanele mooy le président de la République encore une fois nous lui lançons un appel solennel pour que talaatay bi mu jël ko dugal ko ci agenda culturel lu Sénégal gën a dugal loxoom gën a dooleel dugal loxoom la première dame Marème fay Sall itam ñu ngi koy woo ci loolu di ko wax nii véritablement ñu ngi koy lancé l'appel que mu jàppale jigéenu Nder nu mu leen mën a jàppale rek ne na ko jàppale ndax jigéen ñooñu kat ñu ngi liggéey ñi ngi daan seen doole te seen ay moyens personnels seen propre moyen la ñuy doxalee loolu maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan trop ci invitation bi Euh, di la jaajëfal di la wax véritablement je suis vraiment content ci invitation bi te kontaan naa trop jàkkaarloog yow. jërëjëf Ousmane Ben Thioye ñoo bokk mbégte mi secrétaire général la ñu doon dalal ëllëg euh, la ñuy màggal euh, boobule xew-xew di ndokkeel waa Nder ci bës boobu di leen ñaanal ndam ci lii ngeen sumb ndax itam lépp luy njariñal askan wi rek dafay war a yitteel ñëpp ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la yow itam gërëm ñu doon déglu gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi émission bi réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu joxante euh, dig daje dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen jaa ngeen jëf ñu yendoog jàmm